yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloo ak yéen fii ci Sénégal Buzz a nu ñu koy defee rek saa su ne di ñëw ak yéen ci li nga xamante ni nag moo di xew-xew di actualité actualité bi nag mbokk yi nag ñëw nag euh, tegu ci kaw ki nga xamante ni nag moo di euh, xale bi nga xamante ni moo di Dieyna Baldé euh, Dieyna Baldé nag di doomu Kolda ñu gën ko xam nag ci turu seen petit gàlle moom Dieyna Baldé nag yaakaar naa ni sénégalais xamoon nañ ko ci li nga xamante ni moo di seen petit galle ah, ginnaaw nag bi ñu ko xamee ci seen petit galle nag ci concours yooyu noonu nga xamante ni nag mi ngi ko fa doon def waaye nag ñu gën ko ràññee nag ci bés yi ci ginnaaw ci coow li nga xamante ni nag amoon na ci digganteem ak ki nga xamante ni moo di Mamadou Diop ISEC ginnaaw nag bi coow loolu nag juddoo woon seen diggante moom ak Mamadou Diop ISEC moom Dieyna Baldé nag di xamal ni rek Mamadou Diop ISEC def ko tëddee violé nag ba mu jëlee ci ab ëmb ginnaaw nag ëmb boobu nag moom Baldé am ci li nga xamante ni moo di doom ci coow loolu nag Mamadou Diop ISEC tëddoon ci li nga xamante ni moo di kaso waaye nag mbokk yi nag démb ñu am ab information bi nga xamante ni nag nag euh, moom Dieyna Baldé nag yoon daf ko jàpp arrêté ko ci li nga xamante ni nag euh, la ñu ko jàppee nag ci benn mbir bi nga xamante ni nag séqoon na ko euh, benn ci ki nga xamante ni moo di mbokk waykatam mbokk waytakatam nag di ki xale bi nga xamante ni nag di Jibril Fall ñu gën ko xam ci ki nga xamante ni moo di Bril moom nag Dieyna Baldé nag amoon ab coow ju topp ci ñoom ñaar xale yi nag ñu bëri nag mu nekk ni nag di am xel ñaar ci xale bi nga xamante ni nag moo di Dieynaba Baldé yoon nag teg na ko loxo di woyal li nga xamante ni nag moo di enquête am ngir def li nga xamante ni nag moo di liggéeyam ci Dieynaba Baldé ak ñi nga xamante ni ñoo di ay complice am mu àndoon ak ñoom ci li nga xamante ni nag moo di deal bi nga xamante ni nag dugg na ci bi mu àndee ak xale boobu nga xamante ni nag moo di Bril nag ñu gën a ko xam ci euh, way moom nag euh, am lu mu seqoon ak li nga xamante ni moo di Dieyna Baldé ci jot li ñu jot am ci ay information ñu xam la ni rek moom Dieyna Baldé nag dafa nekkoon ak ki nga xamante ni nag moo di xale bu góor boobu ginnaaw nag ba ñu nekkee ñoom ñaar nag euh, mu jóg euh, jël li nga xamante ni nag moo di ay téléphone xale bu góor boobu noonu ba ci téléphone am amoon nag ak complicité ki nga xamante ni moo di magam bu góor ginnaaw nag loolu noonu nag am seen diggante nag bi xale bu góor bi yow rek mu xam li ko ni rek nañ seen téléphone la nag ci kaw noonu tuuti xale bu góor bi utal ko li nga xamante ni nag moo di beneen téléphone waaye nag jotut woon porté def li nga xamante ni moo di porté plainte ginnaaw loolu noonu nag weesu tuuti nag moom waykat boobu noonu di Jibril Fall commencé jot ci li nga xamante ni nag moo di ay menaces duggee ci téléphone am yooyu noonu nga xamante ni sàccoon noon ko ci ay vidéo yu nekkoon ci moom. loolu nag dugal li nga xamante ni nag moo di Dieyna Baldé ginnaaw bi yoon defee li nga xamante ni nag moo di liggéeyam ci coow loolu nag ki nga xamante xamante ni nag mbokk yi moo di aadamoo génn na def li nga xamante ni nag moo di sortir nag di wax ci ki nga xamante ni moo di Dieyna Baldé di xam ne nag xaritam la woon waaye nag bett na ko ndax euh, daf ko jëloon euh, def ko foogee woon ko li nga xamante ni nag moo di nit ku baax ci loolu nag moom Adamo nag wax na ay kàddu yu ñaaw ki nga xamante ni moo di Dieyna Baldé ba ci nag di xamle ni nag yor na li nga xamante ni nag moo di ay vidéo lu motifam moom aadamoo nag mu ngi koy xamle nag ci live bi nga xamante ni nag doon na ko def sànq eh, di ci dëkku ki nga xamante ni nag moo di Dieynaba Balde ci jëf ji nga xamante ni nag jëf na ko di dem di tëdd ak ay góor ba ci sàcc li nga xamante ni nag moo di seeni ay téléphone eh, ci xale bu ndaw a ndaw a ndaw loolu nag mbokk yi yaakaar naa ni mu doon doonoon fi actualité boo xamante ni eh, bett na sénégalais yi nag ci xale bi nga xamante ni nag ñu ngi ko xamee woon ci seen petit gàllem mu ci doon def seen concours way tos ñebe muy but buti di suus waaw lii but buti si réew mi nii gaamal la sum waa ji lii la la nii ñaari caga yi ñaari caga yi gaamal but buti nii réew mi bokk ah bril bril faat foo yaa ñàkk jom njaalookat bi e njaalookat bi e njaalookat bi njaalookat bi bilaa yaa ñàkk te bon xale bu jigéen bii de gaama la sumuwaay bu doon sa sër la gaan doon nangu ñu koy tëddee de nga fat booy bi di ko tëddee parce que xam nga ne doo ko takk xam nga ne doo ko takk xam nga ne xale bu jigéen bi doo ko takk nga fat ko gaan dëkk moom di dund ak moom concubinage di tëddee xale bu jigéen bi bilaay wallaay yaa bon njaalookat bi boo jugee saawaay di signaler droite di tëbakat dal di jéem a jaay mbaax naan da ngeen di woy di yeddaate di teg xel te doo leen dara ay naafeq ngeen gëmoo leen gat gëmoo leen ko ñàkk jom xale bu jigéen bi tamit saawaay cagabu bon la kii moom gaan jot na saawaay xoola ay waajuram lijjanti ko quoi noonu la demee Kolda nga jugee from Kolda jot na nax say waajur gaan man la sum waay boo jugee sa problème bi say waajur jëlaat la yar la tette la wat lan ndel yóbbu la daara waaw genre jigéen yi moom saawaay boo leen màggee nii saawaay moom gaan génération bii ni ñëw di ngeen koy yàq quoi barki alxuraan yaay jugee si paa barki dee moo njaay sa moroomu baay ñu dugal ko si kaso bi tey nga ñëw gaan man la sum dem dëkkër dem dëkkër ay góor ñu lay tëddee ñëw gaamal la sumuwaay naa da ngay sàcc ay kóol di dugg si ay affaires yi yéen daal ay affaire de mafia yi gaan man la sumuwaay ni ngeen bëgg jàppee seen àdduna quoi si ay xale yu ndaw yoo xam ni damagoo leen fenn damoo leen jàngi damoo leen uti xam-xam ngeen bëgg teg seen àdduna si cagatu ak chantage ak teg xel non billaay wallaay wa tallaay saawaay non bay li am si réew mi dafa doy waar quoi barki alxuraanul karim te bàyyi lii kese moo tax saa waay xoola ñuy siisu quoi di nakkarlu vraiment xam nga genre affaire yu salte yi quoi. parce que lii kenn bëggul saa sa doom wala sa jarbaat nekk si barki alxuraan lii kese tax bàyyi. li kase tax ñuy wax quoi du bëri wax du bës du dara mais xam nga la fa salte te ñaaw. barki yàlla yow nga ni porteur de voix nga ñu lay xaar si leneen ngay fat xale yu jigéen yi gaamal la sumuwaay ki nga xam ni xëy na dem na ba jaaxle nga war ko taxawu jàppale ko. bu doon dëgg la fas ko soxna dimbali ko mais non non nga fat ko dëkk moom di ko tëddee ba muy sàcc sa téléphone. billaay waaw lii but but mi nii gaamal la sum waa ji lii la la nii ñaari caga yi ñaari caga yi gaamal la sum waa ñooy but buti nii si réew mi bokk ah. Eh, et Bril Bril Fight yaa ñàkk jom njaalookat bi et eh, njaalookat bi eh? Eh, njaalookat bi eh? njaalookat bi bilaa yaa ñàkk jom te bon xale bu jigéen bii de gaama la sumuwaay bu doon sa la gaan doon nangu ñu koy tëddee de nga fat booy bi yu ko tëddee parce que xam nga ne doo ko takk xam nga ne doo ko takk xam nga xale bu jigéen bi doo ko takk nga fat ko gaan dëkk moom di dund ak moom concubinage di tëddee xale bu jigéen bi bilaay wallaay yaa bon njaalookat bi boo jugee saawaay di signaler droite di tëbakat dal di jéem a jaay mbaax naan da ngeen di woy di yeddaate di teg xel te doo leen dara ay naafeq ngeen gëmoo leen gat gëmoo leen ko ñàkk jom xale bu jigéen bi tamit saawaay caga bon la kii moom gaan jot na saawaay xoola ay waajuram lijjanti ko quoi noonu la demee Kolda nga jugee from Kolda jot na nax say waajur gaan man la sum waay boo jugee sa problème bi say waajur jëlaat la yar la tette wat la ndel yóbbu la daara waaw genre jigéen yi moom saawaay boo leen màggee nii saawaay moom gaan génération bii ni ñëw di ngeen koy yàq quoi barki alxuraan yaay jugee si paa barki Démoo Njaay sa moroomu baay ñu dugal ko si kaso bi tey nga ñëw gaa man la sum waay dem dëkkër dem dëkkër ay góor ñu lay tëddee ñëw gaamal la sumuwaay naa da ngay sàcc ay kóol di dugg si ay affaire yi yéen daal ay affaire de mafia yi gaamal la sumuwaay ni ngeen bëgg jàppee seen àdduna quoi si ay xale yu ndaw yoo xam ne damagoo leen fenn damoo leen jàngi damoo leen uti xam-xam ngeen bëgg teg seen àdduna si cagatu ak chantage ak teg xel non billaay wallaay wa tàllaay saawaay non baay li am si réew mi dafa doy waar quoi barki alxuraanul karim te bàyyi lii kese moo tax saa xola xoola ñuy siisu quoi di lu vraiment xam nga genre affaire yu salte yi quoi. parce que kenn bëggul saa sa doom wala sa jarbaat nekk si barki alxuraan lii kese tax bàyyi. li kase tax ñuy wax quoi du bëri wax du bës du dara mais xam nga dafa salte te ñaaw. barki yàlla yow nga ni porteur de voix nga ñu lay xaar si leneen ngay fat xale yu jigéen yi gaamal la sumuwaay ki nga xam ni xëy na dem na ba jaaxle nga war ko taxawu jàppale ko. bu doon dëgg la nga fas ko soxna dimbali ko mais non non nga fat ko dëkk ak moom di ko tëddee ba muy sàcc sa téléphone.